fay. di la dalal jàmm si li nga xamante ne tey événement bi yaa ñu war a dalal mais ñun dañ lay dalal tamit si suñuy plateforme. merci beaucoup maa leen di gërëm di leen sant ñetti micro yi may gis si je suis fier de les voir Medoune c'est un ami un, un frère que je respecte un vrai lion de l'image du Sénégal ñu koy gërëm di ko sant Sénégo Kawtef avec ma petite sœur Aïda donc macha allah moi aussi c'est plaisir de vous accueillir Medoune respect. mu ngi noonu tey nag ñu ñëw fii macha allah gis nañ décor bi nu mu yéen ñaaññee trop euh, tey jii du ñoo bëgg a xam déjà ban lan moo tax tey jii nga am bile inspiration. waaw en fait euh, du ma ko tuddee inspiration mais dama koy tuddee processus continuité la benn étape la processus boo xam ne commencé nañ ko yaa quatre cinq ans. Euh, di par rapport ak suñu carrière parce que am na fu ñu jógee ba agsi ba fii je pense que bu ñu fuyatee un peu nos archives bi ñu gënee nekk xale yàgg nañ bëgg a def production vidéo dañ daan dem si maman bu maman Oumou Sy muy une fierté sénégalaise daan ut ay tenues traditionnelles si moom euh, c'est donc tey bu ñu nekkee si œuvrer pour le rayonnement de la culture sénégalaise donc loolu continuité la donc c'est un concept qui s'appelle bienvenue au Sénégal maanaam ñu duñ souhaité àdduna bi yëpp ñu gëstu Sénégal ñëw fi gëstu li fi nekk partagé ak ñun li ñu fi am muy bonheur paix ak ay paysage yu extraordinaire ak histoire boo xamante ni c'est à partager donc ñu ngi ko démarré woon en quatre en deux mille vingt avec benn production bu tudd bienvenue au Sénégal avec les Pape Diouf ñu def si tournée bu mag dem am Europe si loolu ñu bi ñu paree tournée bi ñu am occasion nekk si ay festival yoo xam ni festival de culture la réew mu nekk da nga fay dajee jaay si culture bi ñu demee ñu yóbbu fa ceebu jën par hasard comme ça yàlla dimbali ñu vraiment ceebu jën ëpp fa succès y avait plus de quarante nationalités mu tombé waar juste si même période bi euh, ñu nommé ceebu jën euh, ñu primé ceebu jën plat immatériel de l'UNESCO donc ñu ne pourquoi pas nous jeunes sénégalais xamuñu kan mooy Penda Mbaye parce que moi-même je pensais que du personnage du nit buy dund je pensais que juste appellation la rek comme ça comme ni ñuy waxee Baara Mbaye comme ni ñuy waxee yeneen tuuti et par curiosité je suis parti voir des saint les ils m'ont dit écoute kii géwél la fii la dëkk def na lii def na lii def na lii et c'est parti l'idée de faire un film documentaire et d'initier euh, ça comme étant modèle boo xam ni moo gën a baax pour def destination Sénégal parce que si dernier cent yi moom laa gis seule création sénégalaise bu traverser les cent ans en promotion partout dans le monde te gouvernement defalu ko promotion kenn jaay ko. yow yaa ah dama bëgg wax ni jar kenn jaay ko parce que foo dem si àdduna. tubaab chinois fu ñu dugg dañuy wax jaay ceebu jën suñ duggee restaurant sénégalais donc dafa nekk loo xam ni c'est la star des stars sénégalaises donc pour ñun en tant qu'acteur culturel et réalisateur il n'y a pas mieux prétexte que de faire rêver les Sénégalais que de les rappeler qui est cette grande dame cette euh, grande étoile de, du Sénégal mel ne ne rek maman umb si itam mu ngi ñu doon xamal ni Penda Mbaye euh, créé wul li nga xamante ne mooy ceebu jën waaye moom moo créé tamit le même jour li nga xamante ne moom mooy ndoket. tout à fait tout à fait maman umb si moom je pense que bu ñu yàlla mayee fan bu gudd ñun bëgg nañ sax gëstu tu tout de parce que yàgg nañ dugg si avion romb si ay aéroport di vraiment gis ay œuvre parce que nit moom. bu liggéeyam demee ba traverser les frontières defe naa réewam ameel nañ ko njukkal te ñun ñi nga xam ne ay xale lañ nekk dans le circuit dañu war di ko jege di ko xool di ko déglu euh, soo xoolee man tey les gens qui me connaissent man tey lu ma changé te désormais je vais adopter ce genre de style à cause de d'elle parce que moo ñu convaincre donc suñu amee nit yu mel noonu dañ leen war a fon li mu wax dëgg la Penda Mbaye yëngu rek si créé moo tax je refuse que les Européens disent cette cuisinière sénégalaise je veux que ñu naan l'artiste sénégalaise l'étoile sénégalaise Penda mbay parce qu'elle la créé dafa créer lu ñu tuddee art culinaire foo dem en Europe seen art culinaire yi mooy gën a dox mais aussi dafa créé si lu jëm si art de la danse fecc boo xam ne kuy jigéen sénégalaise bëgg nga ko mën te mën nga ko donc kooku artiste la mais du cuisinière la nouvelle génération nga xamante ni euh, jamono ji ñoom kenn xamatul sax fi nga sokkee ko ñu si bëri naan la faute c'est aux parents ñenn ñi tamit ne faute bi si ñi nga xamante ne la mooy ñun ñi ndaw ñu ñun ñoo bëggul xam di toog jéggaani di topp li nga xamante ne moom mooy tubaab bi. bon pour man c'est c'est c'est à la fois lépp parce que en fait fi jamono toll la du si ndaw ñi parce que jamono moo toll si li ñu naan les nouvelles technologies les réseau sociaux peuple bu la gën a disposer. imposer la culture am peuple boobu moo la ëpp doole bokk na si ñun lu ñu gën a pousser ne pourquoi pas ne pas faire aimer à notre génération à nos enfants à nos petits frères des les les merveilles du Sénégal il y a pas plus joli que ça cette dame qui porte tout ce qu'il faut comme bijoux comme coiffure naturelle comme tenue et garder sa peau donc pour man xëy na dañ ko xamul donc nous réalisateurs on doit encore mieux travailler pour faire aimer à cette nouvelle génération xeex ba implanté si réseau bi ba nga xam ne une fois que yàlla dogal xeex bi bëri ñun suñu particularité suñu culture dina fa am place donc réseau sociaux moom bagaar la bokk na si nag li fay tax nga am fa place nga indi lu oo xam ni pour yow la loo bokkul ak kenn looloo tax ñu indi cette culture sénégalaise et là où je vous parle le monde entier nous attend pour ça de pour une dernière question rek ceebu jën Penda Mbaye lañ wax te jigéen ñu bëri mënuñu ko togg loolu itam mu doy waar ba sax dañuy jaay ay njuluk donc tey ji ban conseil ngay jox li nga xamante ne mooy jigéen ñi. y a pas un meilleur plat pour le partage y pas un meilleur plat pour donner du plaisir au Sénégal que le ceebu jën donc jigéen bu bëgg sa kër neex am jàmm. demal nga jàng ko nga togg booy bu ko bu ko toppandoo rek ci togg bi mais toppandoo ko si élégance toppandoo ko ci prestance toppandoo ko ci bëgg lu rafet mais toppandoo ko si si sol lu yiw ak lu jot donc on donne conseil à toutes les femmes de se revenir e d'aller se ressourcer de m'imiter ces ces merveilleuses femmes qui ont une culture extraordinaire donc on en profite pour remercier vraiment maman Oumou nga xam ni euh, vraiment jàpp na si bis ku xool salle bi ni nit ñi solo ak liggéey bi li si tout à l'heure vous allez découvrir un merveille qu'elle a créé pour cette perle destination Sénégal parce que Miss moom dootuñu ko xalaat ci Sénégal di ko solal leneen ndax maman Oumou Sy rey na loolu di dem toppandoo tubaab ndax lu mu créer donc encore une fois elle est là ñuy wax ni Sénégal yëpp lépp loo leen gis ci cette perle destination Sénégal kooku ñu naan biddiwu Sénégal mu wër a wër àdduna maman Oumou Sy moo def création bépp donc à travers ma voix toute l'équipe dit merci à maman Oumou Sy qui a été à not côté disponible les idées def lu musul def kenn musu ko gis mu def ban annonce di def publicité mais avec ça ouais elle a été disponible et faire une bande annonce maman merci au nom du Sénégal. nga papis ñun mënuñ la fay dañ lay ñaanal yàlla yàlla def na la xale yàlla na la yàlla def mag bu yiw li nga sumb yàlla na àgg lii nañ ko pérenniser at bu nee ñu def lu gën a bari lii. waaw loolu mooy objectif bi yàlla na ko yàlla sottil. yàlla def ci sutura bu bari ñi teew fii tam yàlla defal leen sutura yàlla sàmm leen def barke ci seen jaboot. jërëjëf. merci merci merci.